Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo leen di may de presse jàngeen jëf coow li naan cobboy ci recours annulation ñeel liste yu Pastef fi nga xamante ne kon Ousmane Sonko moo ko jiite gannaaw taxawaay bi nga xamante ne coalition takku wàllu Macky Sall jiite ko am nañ ko mu mel ni waa Pastef si seen wàllu bopp indi nañ ci tontu démb ci ab ndaje ak taskatu xibaar yi ŋàññi nañu doxalin bi ba noppi yamuñu ca mu mel ni ñuy dànkaafu Macky Sall ak nguuram ndax nee ñu bu fekkee am nañu majorité daañu ñu samp ab cour de ngir atte ñi nga xamante ne leen dénkoon ndombal tànk ci ay mbir yu ñu leen di tuumal bokk na ci sax lu ñuy tuumal yenn ci ay directeur général muy doxalin ba ca AIBD ca Dakar Dem Dikk naka noonee tamit ay scandale financier moom la El Malick daa di becc scandale yooyu moo tax kon Pastef yi ne daañu samp ab haute cour de justice ngir atte ñi nga xamante kon ñoo fi nekkoon ay jëwriñ ci nguurub Macky Vox Populi di xamal ni loolee la ñu xam moo tax ñu fas yéene attaqué jiite waaye ci loolu yéenekaay bi mu ngi xamal ni pastefiens yi dañu ko jàppee e mbiru caaxaan kese lu nekkul caaxaan te El Malick Ndiaye jàpp ni mooy dëgg mu ngi ci biir Les Échos ndax jëwriñ ji ñu dénk wàllub infrastructure dem bi ak dëkk bi tamit mu mel ni suli na mbootu guvernement bu Macky sàll rawatina ci yenn direction yi lu ci mel ni AIBD FERA ak Dakar Dem Dikk Dakar Dem Dikk boobe moom jëwriñ ji nee na lu jege ñetti junni ni ay CDI lañ fa daal di signé lu ëpp ñetti téeméer tamit ñoo nga foofu territorial bi toll ci benn milliard ak ñaari million ci AIBD tamit lu nu mel leen fa nemmeeku joriñ ji sax yemu ca ndax nee na DG ba woon ay marché yaama neex yu toll sax ci ñaar fukk ak ñetti milliards lañu fa daal di nemmeeku li El Hadj Malick Ndiaye ni ki démb le témoin yéenekaay dafa gis ni dafa rekk lakk gouvernance bu Macky Sall ci boppam ba noppi yemu ca nee na dinañu samp ab haute cour de justice bu fekkee am nañu majorité majorité bi nag nekku rek waa Pastef koy liggante jamono ji moo tax peu la ñu ci nemmeeku te ay ministre ya woon ak i directeurs généraux mu mel ni ñoom ñëpp dañoo daw làkkatu ci ay liste nationale ku ci nekk bëgg doon député ngir nga mën a am mbarlaanu kiirlaay Sud Quotidien di ñu xamal ni xëccoo bi nag ubbeeku na ngir jëm ci élection législative yooye ñu war a amal ci weerub novembre bi ñu dëgmal lu ko dalee ndakaaru mi nga xamante ne jàpp nañu lu am solo la ci xeex bi Sikicoor mi nga xamante ne tamit Pastef war na fa mën a dëggal boppam jaar ba ca diwaanub Linguère foofee El Hadj Ndiaye fas yéene ko defante ak Samba Ka yéene kaa bi di xam ne ni tamit diwaan bu mel ni Podor moom ay mbokk ñoo fa war a laale lu ci mel ni Cheikh Oumar Anne Abdoulaye Daouda jalo ba ci Racine si ministre Ibrahima si tamit moom kenn fàttewu ko ci ca maatam fi ñu jàppee woon titre foncier Macky Sall mu mel ni carte gi war nañ ko mën a xoolaat jàngat yi yëpp moo tax yéene kaay groupe Sud Communication bi di xam ne ni kan fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre moom lu ne mën naa xew ci élection yi laata bis boobee sax lu ne mën naa xew l'observateur di ñu xamal ni coalition bi nga xamante ne Macky Sall ak Karim Wade ñoo ko jiite daal di nañuy attaqué liste suppléant yu Pastef recours yi nga xamante ne ñu ngi koy nemmeeku fu nekk moo tax bis bi le jour gis ni boo moytul dina am ñu ñàkk lu bëri ci élection législative yi yéenekaay bi xalaat ci sax ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko ak Barthélémy Diaz ndax candidature maire bu Ndakaaru ci boppam tamit dañu ko attaqué ca conseil constitutionnel gannaaw bu Ousmane Sonko ci boppam sàmm sa kàddu mu mel ni ku ci jàmbaarama tuuma Pastef ndax dañoo njort ni moo nekk ci ginnaaw ngir éliminer kii di Barthélémy Diaz enquête moom am am na lu mu njort ci Amadou Ba ba tax muy laaj ndaxam moom jëwriñ ju njëkk ja woon moo nekk ci ginnaaw sabotage listu Macky Sall yi ci yeneen diwaan yi ndax li ñu disqualifié liste taxaw Sénégal ci lu toll ci juróom-ñaari département coalition jàmm ak njëriñ bu amadu Ba ci boppam moom la APR ak ñi mu àndal di jàmbaaramu tuuma yëf yi nag fi mu toll tax na ba Macky Sall laaj explication ñi nga xamante ne ñoom ñooy ay responsable yu nekk ci gox yooyu diggante Macky Sall ak Pastef Walf ci la xëyee tey at weesu na ko ndax gannaaw lu ñu laalee ba yegg si fii teewul tey jii la wàllu gën a ay ku ci nekk ma ngay tam ku ci nekk di tam sa morom dëmm yokk ci galgal yi nga xamante ne tamit ñu ngi koy defante ngir jëm ci élection législative yi Le Soleil jëm ba ca diwaanub Casamance di wax ci dellu si bi nga xamante ne daw làqu yi def nañ ko ci seeni gox mu mel ni dund gi normal dooraat na ci diwaan yu bëri li ko waral yéenekaay bu aan bi mu ngi xamal ni kon plan Diomaye pour la Casamance moom la ñu daal di door plan Diomaye pour la Casamance démb ñoom ju njëkk di Ousmane Sonko moo ko sumb nee ñu lu ëpp juróomi junni ni ay njaboot ñoom dellu nañu seen dëkk nguur gi tamit fas yéene génnee lu toll ci fukk ak juróomi milliards ngir sulli ndell yu ñu suuloon ci gox yu bëri coow li am ca Azer moom suulaguñ ko ba léegi bis bi le jour mi ci xëy tey di xam ne ni kon am na lu ca bees ndax ARCOP ci boppam daa nay dakkal exécution marché bi nga xamante ne moom le directeur bu yees bi daa di sumb kuréel gi nag di xaar dossier bi nga xamante ne laaj nañ ko Azer ba léegi te gisaguñ ko libération moom gis ab mafia ca trésor public yéenekaay bi ne coowal chèque de trésor et de taxe mu mel ni xam nañu ana fan la tukkee ak ñi nga xamante ne ñoo ca laale ñett ci ay agent teg nañ leen loxo jamono ji payeur général bi ci boppam mu mel ni am na ci taxawaay ndaxte porté na plainte ba ñu daal di ci ubbi ab l'enquête Rewmi Sport wax ci wàccaayub jongante Sénégal Malawi groupe gaynde yi nga xamante ne kon ñoo lëlu ca jam naajo yéene bi nee na lu des ngir mu complété bëriwul daanaka ñaar ci ay suwar la